Cheikh al Imam Sadou si loolu léegi laa koy wax ci benn site ma ne ko nañu dimbale katolik yi buñ ko xamee ñu wax leen nu ñuy organiser feet yi ndax feebar bi te bàyyi leen ñu organiser ndax ñun julli bi may na ñu ñu organiser kon buñ leen ko xañee xanaa bokkuñ ci réew mi du yéen a ngi nii organiser kon kay 24 bàyyi leen ñu kaata rek ci ne mais nañ ko teg ci yoon muy nii ngeen defee seen conférence yéen ñëpp a ngi takk masque ñoom bañuñu ko organiser dañuy bañ ko déborder gis nga nii ma téye micro bi su police ñëwoon ne ma na yem du ma fii lay teg micro bi dugg sama oto dem xam ne sama jàmm lay wër man noonu laa bindoo damay sóoraale lu yegg seegu mais nañ leen ko may may nañ ñu ko nañ leen ko may du ñun ñu ngi ñuy daje di ay musulman mais kon ñoom it buñ yeggee na ngeen sarax ñu daje te kat li fi yàqu yëpp doone catholique ma ko yàqal sama mbokk jullit rekk ma ko teg ñun ni nu mel aayaare kenn xamul imaamu ali day waxtaan di borom xam-xam di bayaal di porte di conseil lépp jub nga mën ni ku ëskay waaye fu commencé bayaal nga génn su commencé wax nga dem su dee nga jooy yaay naa su dee nga jooy parce que jooyi kontante la du jooyi naqar ndokk yàlla dee na faf ñu teg seen tànk xataraayoo eh. amuñu fu ñu teg seen tànk yaaya waroon a yar bàyyi war a dundal yaay mënu la yar ndax mooy indi ci kër gi dund bàyyi ngay taxawal ne daa retraité mbedd mi jël xale bi mais mbedd du yar day yàq loolu rekk a il faut mbir mi ngeen di ci demee xel bañ di ci demee xol kenn du fay sa alal borom gaal ne ko buñ demee ci géej ga nga rey ma xanaa loolu tofa mooy def man ma jël sama trois cent mille jox imam Sanusi ne demee ba ci géej ga ba ma ca ndox ma ma dee loolu fu mu am sama yaay liggi ay aji jóg liggéenti cinq cent mille jox ma jox imam Sanusi ne ko buñ demee ba ci géej ga nga rey ma mais amul fenn yonent bi nee na bépp jigéen buy matu nga dee ca matu wa shahid nga aljana nga jëm du samay wax di su ma ko waxoon ne leen maa ko wax yonent bi nee na bépp nit bu dee ca lakku safara lakku safara néeg a tàkk ci kaw wala sapeur pompier bi daanu ci biir lakk dee yonent bi nee na aljana la jëm chemine la képp ku dee ci ndox lab ci géej baa nga daanu ci géej comme li dal sunu doom yi yonent bi nee na shahid nañu aljana la jëm kenn du ci dem safara yonent bay wax may jottali Moustapha wax may jottali papa yi yéen ngi nii wut leen dund yóbbu ci kër gi yaay yi toog ci kër gi yar doom yi xale yu normal ki war a yar bu waree dundal njaboot ki war a yar muy dundal euh, la waaja waxoon nee na defe naa am ngeen imaam am ustaas fii mal iqaamatu fii zawraay immigré lay wax di immigré fii mal iqaamatu fii zawraay laa sakanii fiiha wala naaqati fiiha wala jamali xale yaa ngoon réew mi nañ bàyyi par parloo baaxul seet leen fa dëgg ni ngeen féetee fa bu ci far desee far leen ak seen baay ak seen ndey bu leen juruloon kenn du leen xam caaxaan baaxul du lu kenn di leera suñuy soxla lépp ngi ci biir loolu yéeme Iran lu tax ngay waxtaan ma ne dama bëgg siiw loolu loolu laa ci jublu ñu fay ma siiw ma perte li ci des lu tax ngay waxtaan mun ngeen tuddee bës bës yàggul buñ la taggee tey ci internet yi gannaaw suba ñu saaga sa ndey walillahi al izzatu wa li rasulihi wa lil muminina alquran yàlla nee na bës maa ko yor laaj ma Cheikh Alhaaji tey xalifaama nga toog di Serigne Babacar bu moom Alhaji Mansour lépp nga fay fekk loolu yu bës ba rek laajal Serigne Touba luy bës tey Serigne Mountakha Mbacké ngi toog lépp nga fay fekk xalifa murit bu faatu da nga fi bàyyi caisse noire bu Xaadimu Rasuul caisse noire bu Xaadimu Rasuul kilifa bu faatu doo ko fi bàyyi nangami milliard banaa ko ci geesu seen Tuuba te ku dem da fi liggéey lu ñépp ni coow kon kay dañuy fexe ba lépp day avancé kooku loolu mooy bës bës moom waaye imaam Ali mu waxtaan tey imaam Salu si tàccu ñépp ni ko ah tey moom tey moom toj nga ñaari tali jàppal ne tabax war na la toj nga ñaari tali yow dëkk bi toj ngay dëkk bi tabax ngay toj nga génn di jiitaru ku ne jox la loxo toj nga fi toj nga fi waaw salu si naka la seen jumaa ji yeggee gannaaw lu ngeen tabax alin toj ko loolu du waxu nit du waxu nit moo